ci seen xët bu njëkk ci fukki fan ak euh, ñeent bi ci weerub septembre ñu daal di koy dooree ak lii quotidien di ñëw ci ba tey wàllum inondation yi jamono ji nga xamante ni euh, Parcelles ak Keur Massar ñoom ñoo gën a souffrir daanaka ci mbir mi waral ñu ne dans l'enfer des sinistrés ñu ñëw fekk ji dem xooli ñi nga xam ne ñoom ñoo loru ci mbënn mi jamono ji naka la ñuy dundee gannaaw ba nga xamante ni taw boobu wàcc na ndox bu bëree daal di nangu seen kër yi loole la daal di euh, lii quotidien daal di titré euh, anam bi nga xamante ni jamono ji ñooñee di parcelle ak Kër Massar ña fa ña fa dëkk ñu ngi koy dundee ci inondation bi ñu jógee foofu wax ci euh, le quotidien yéenekaay yi ñëw ci li nga xam ni euh, ba tey moom it ci wàllum inondation di wax ne bataille euh, locale mu mel ni am na ay xiiroo ngaayoo yi nga xamante ni leader yi nekk ca ca yenn gox yi ñu ngi koy def ku nekk daal di wax di jiñ sa morom li nga xam ni moom moo xew wala boog di am ay jiixi jaaxa yoo xamante ni am na foofu en tout cas ci gox bu nekk rek ku nekk di wax ne mbir mi responsabilité keneen ki la donc mu indi fa ab coow yoo xamante ne euh, seetlu nañ ko depuis bi nga xamante ni mbir mi jub na ci wàllum gestion inondation yi fii ci biir réew mi ñu xool Sud Quotidien dafa daal di ñëw ba tey ci inondation yooyu waaye fësal kàddu kii di Abdoul Mbaye di joxe rek moom réquisitoire am par rapport ak gestion bi nga xam ni ak gouvernance euh, politique ak gestion inondation yi fii ci biir réew mi euh, moom euh, joxe na en tout cas li nga xamante ni moo ci xalaatam ak ñi nga xamante ni matalewuñu liñ leen dénkoon ana lan moo leen ci war a fekk ak it lan lañu leen war a teg comme ay sanctions loolee wax na ko ci biir Sud Quotidien réew mi quotidien daal di ñëw ci pompiste sénégalais bi nga xamante ni dañ ko faat fële euh, ca Libi donc euh, kooku nga xamante ni moo di frère moo daal di rek ñëwaat ci anam yi ñu ko faatee euh, defaat li nga xamante ni moom moo di rek reconstitution des faits ñu xam exactement ci yan anam la faatoo moom mii di ab sénégalais boo xamante ni fële ca Libi lañ ko daal di rek faatee. Vox Populi euh, daal di ñëw moom ci euh, lu ñuy tuddee rek euh, mbas mi li nga xam ni moom la indi ci ay crise lu mu indi ci ay impact donc surtout nag ci secteur informel bi nga xamante ni depuis fi mbas mi ñëwee ba tey sentir nañ bu baax a baax que ni perte nañ lu bëree bëri ci seen wàllum koom donc loolee le Vox Populi ñëwee tey di xamle rek ni crise bi lu mu metti metti ñu féetee ci secteur informel bi ñoom ñoo ci gën a am jafe-jafe ñu ñëw ci tribune yéenekaay yi nga xamante ni euh, ki ci àddu moom moo di Bougane Gueye di euh, njiitulub euh, des médias di wax rek nañu dañu war a di politiser lii di souffrance su sénégalais yi seen ay métit ak seen ay coono ñenn ñi di ci rax politique loolee la daal rek xam ne nii dañoo war a dakkal di politiser jamono ji nga xamante ni sénégalais yi ñu ngi am ay jafe-jafe ñuy ci rax wàllum politique loolee la xamle ci tribune yéenekaay source quotidien quotidien ñëw ci marché yi nga xamante ni Euh, am nañ ko ñu tuddee marché d'intérêt nationale ak euh, marché plutôt yi nga xamante ni taxawaloon nañ ko ak ay gares yoo xamante ni ay pour gros porteurs yi la ak yenn fonds yeeg prêts yi nga xamante ni ak yeneen ni construction yoo xam ne dañ ko daldi rek euh, de tabax ba pare abandonné ko fële ci ñaajoo loolee lépp toll ci 63 milliards de francs CFA ñu ne dans le vent mu mel ni buñ ko xaymaa toll na ci 63 milliards waaye jamono ji kenn utiliser wu ko ndax loo xamante ni la sumb nañ ko ba pare daal di koy bàyyee noonu muy xaalis boo xamante ni mën nañ jàpp ni xaalis bu yàqu la critique euh, quotidien moom daal di ñëw ba tey ci wàllum inondation di wax ne lavage à grande eau mu mel ni euh, jamono ji ñu ngi jéem a saytu rek mbir mi ana ñan ñoo euh, sooxeel lii nga xamante ni moo ji gestion wu inondation yi ku ci nekk daal di xool ñi ne nañ assainissement la ñii ni urbanisme ak ñu ni mel mais en tout cas fële ci assemblée nationale ñi ngi waajal taxawal benn commission boo xamante ni moom moo nar a saytu loolu te jàpp nañ ni commission boobu mécanique bi féeteeg pouvoir bi ñoo ko fas yéenee rek euh, donc seetal deram ngir ñu wax ne duñu dara ci li xew ci biir réew mi ci wàllum inondation libération daal di ñëw ci jihadiste bi nga xamante ne dañ ko teg loxo mu di ab doomu Allemagne ñu teg ko loxo fee ca aéroport Blaise Diagne donc moomee joxe nañ sax turam Marius euh, Falk donc moom dafa daal di woon bokkoon na ci ñu doon euh, combatre fële ca Syrie donc moomee dañ ko daal di rek jàpp d'ailleurs sax dañ koy defoon euh, mandat d'arrêt boo xamante ni euh, voilà joxoon nañ ko ko fii lañ ko tegee loxo ci biir Sénégal fële ca aéroport bu Blaise Diagne. ñu daal di koy jeexalee ak euh, stade nga xam ne dafa ñëw ci euh, fi nga xam ni moom la ñuy yaakaar ni mën na nekk destination prochaine bu Diao Baldé Keita waaye itam euh, ki nga xamante ni moom moo di Mendy loolee lépp ñu daal di koy waxtaanee ci stade quotidien di xool ñoom seen ay avenir si seen wàllum club fan la war a mën a doon boo leen ci bëggee am lu leen leer mën ngeen a tijji yéenikaay bi nga xamante ni indi na ci ay euh, xibaar yu yaatoo yaatu loolu moo nekkoon li gënoon fës ci yéenikaay yi ñu doon leen a dégtal revue des titres di leen fàttali que comme tous les jours ñu ngi en direct sur Facebook 2STV l'officiel ngeen mën ñu déglu également sur rajo bi wala ngeen ñi seetaan ci YouTube bi 2STV Sénégal comme euh, saa remercier bu baax ñi nga xamante ni saa bu ñu dooree rek ñu ngi ñuy signaler ni ñu ngi seetaan.